tous les collaborateurs qui s'impliquent dans le processus électoral et naturellement l'administration territoriale avec le gouverneur de Dakar parce que nous sommes à Dakar et le préfet de Dakar et les et les sous-préfets. Nous avons parcouru ce matin les cinq départements de la région de Dakar pour nous livrer au même exercice de vérification sur la base d'un échantillonnage qui a été fait par la DGE avec l'ensemble des acteurs pour vérifier la mise en place du matériel électoral. vous avez constaté avec nous que le matériel était disponible dans l'ensemble des centres que nous avons visités. Et par extension, nous présageons qu'il en est de même dans tous les autres centres de vote. de ce point de vue, l'organisation matérielle ne devrait pas connaître de difficultés majeures. Il y aura toujours le jour du scrutin peut-être quelques détails que nous ne souhaitons pas. Mais en tout cas, il y a une organisation qui permet de parer au plus pressé chaque fois qu'il nous sera de constater des, dysfonctionnements, quels qu'ils soient, pour que ce scrutin se passe dans les, meilleures conditions, que les Sénégalais puissent s'exprimer librement, dans la plus grande transparence, mais surtout dans, dans le calme et la sérénité. Une consultation électorale dans un pays démocratique comme le Sénégal doit être banalisée. Ça doit être un moment de respiration et non un moment de tension. Donc j'en appelle à la vigilance de tous les acteurs, j'en appelle à la responsabilité de tous les acteurs pour que le scrutin demain puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Occasion pour rendre également hommage aux forces de l'ordre et de sécurité qui sont mobilisées, comme vous le constatez, pour sécuriser le, vote, pour sécuriser l'ensemble des opérations, pour sécuriser les, électeurs eux-mêmes hein, et sécuriser tous ceux qui seront amenés à intervenir, parce que nous avons beaucoup d'invités dans les centre et dans notre pays avec les observateurs qui y séjournent. C'est notre devoir de veiller sur leur sécurité, de veiller sur la sécurité de l'ensemble de nos concitoyens. Et nous appelons les différents acteurs à nous aider à faciliter le travail des forces de défense et de, sécurité qui sont amenées à collaborer également avec la presse pour faciliter le, travail de collecte de l'information. Parce que le premier critère de la transparence, c'est la bonne information. S'il y a une bonne information, nous, partons sur de très bonnes bases pour qu'il y ait de la transparence. Et aidez-nous à relayer la bonne information. Et la bonne information, c'est la bonne source. Il y a des sources officielles, notamment la Direction générale des élections, il y a la Sénat, il y a des structures qui organisent cette élection, il y a l'administration territoriale. Adressez-vous aux bonnes sources pour avoir la bonne information. Ça nous permettra d'éviter la désinformation qui peut être source de tension. Tout ce qui peut être fait pour proscrire la tension, il faudra le faire. Donc c'est cet appel que je voudrais lancer à l'ensemble des acteurs du processus électoral dont vous êtes. Merci beaucoup. J'avais dit que je ferais une déclaration en Wolof, mais il m'a obligé à parler français. À défaut d'anglais, je vous ai donné une déclaration en français. Voilà. Je l'ai fait par courtoisie, vous dit que vous veniez de l'étranger. donc nous té suñu interlocuteur yi nak ñu ngi seen kër yi tok di ñu déglu moy sénégalais yi yu nak ci biir réew mi ak yu nak bitim réew donc di gërëm di sante euh, suma collaborateur yi ma andali nga xamni man danaka coordinateur la ci équipe bi rek loolu la yàlla def processus bi commencé na bu yàgg mu tombé ci sama loxo ma war ko yeggali di ñaan yàlla may nu àggale ko ci jàmm yaakaar naa pour bu mu commencé ak léegi depuis 2023 mille ñaari ministre de l' intérieur jaar na fi am lu ci liggéey man may ñetteel bi yàgguma fi mais soo gisee ma mën ko jël en marche mu mu dem dafa fekk dafa am ñu ko téye ñi nga xam ne ñoom demuñu ñu ngi fi ministre yi du ñu ñëw bàyyi leen fi moo xam waa direction générale des élections la moo xam administration territoriale bi la moo xam force de sécurité yi la ñoom ñi ngi ñu ngi fi ministre bu ñëw dem bàyyi leen fi ñu continuer seen liggéey muy liggéey bu ñu xam. Sénégal yàgg nañu voté wax naa ko waxati ko yàgg nañu voté te mën nañu voté xam nañu ko parce que duñ ko xam duñ ko xam duñ ko bëgg élection présidentielle Sénégal yi ñoo ko bëggal seen bopp téyal ko seen bopp ñun luñ ci mën rek mooy yombalal leen ko sécuriser ko nu def ko ci jàmm ku yàlla jox réew mi nu xam ne jox na ko mu gën ci moom gën ci réew bi loolu moo ci moo ci ëpp solo donc ñu woo ñëpp ci jàmm di xamal ni seen électeurs yëpp les sept millions directeurs yu nekk ci biir bi ak bitim réew

su ko defee vote bi gaaw comme weeru koor nu nu nekk nit ñi mën a mbayeen yeeg sàmbeen yeeg turé yi mën a teel dem dem ndogu ji balaa sept heures dina fekkoon bureau yëpp arrêté nu def seen dépouillement résultat yi génn jaar fu mu war a jaar bu àgg ci commission national bu ko war bi proclamé donc yal nu yàlla may nu am élection jàmm ci barke weeru koor bu nu bu nu nekk bi comme weeru jàmm la ak weeru jéggalante na ñëpp baissé tension yi parce que li ci dënn yi xajul ci dëkk bi lu ci dënn yi xajul ci ci ci dëkk bi ñuy woo kilifa diine yëpp nu doli nu ñaan doli réew mi ñaan di wax sénégal yëpp ku ci nekk fi nga toog bul xeeb sa bopp ñaanal soo mënul ñaan nga wax jàmm nit ñi di ñaan di wax jàmm rek jàmm dina dina dina am nun sénégal jàmm rek mënu ci donc il faut ñuy wax jàmm di dox jàmm état bi nag ci wàllam pour jàmm am lu ñuy lu ñuy def duñ koy teg ci dëgg ndax lépp loo tegul ci dëgg day day mab donc lépp lu ñuy def dañ koy jéem teg ci dëgg amul lu nuy nëbb lépp leer na lépp jaar na ci yoon ku ci am lu la jaaxal laaj ko ñu ngi ko war a laaj bul informé wu ci mbedd bi informé wu ci mbedd bi te am na yenn information yi donte ne bind nun ko ci ordinateur wala ci téléphone wala nangam moog mbedd ñooy am ndax benn nit mooy taxaw rek bind ko balancé ko loolu nag du Sénégal rek ci àdduna bi yëpp la xew mais direction générale des élections mi ngi fi waa Sénat ñi ngi fi administration territoriale mi ngi fi muy gouverneur yi préfet yi ak sous préfet yi ku dem ci ñoom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

fu mu toll nii def na déclaration mu mel ni ah, mbir mi daanaka jeex na ñëpp a ngi tasaaro ñu joxe dig daje rek suba ci ah, lieu de vote yi nga xamante ne ah, moom la ñu jagleel nit yi pour ñu daal di teel a yeewu dem fekk dispositif bi nga xamante ne dafa daanaka depuis démb yemb na pour ñu daal di am ay élection yu am jàmm élection yu baax yu jaar yoon fii ci Sénégal. Voilà, on vous donne rendez-vous très prochainement. Votre application OneLTV TV disponible sur Google Play. Téléchargez maintenant. C'est une application OneLTV. TV ak Google Play Je vais télécharger Lig Lig.